activité Kaolack li ñu ci tax a jóg mooy ñëpp xam ni ñun ay acteurs d'économie la et de développement te gis nañ ne am na ñoo xam ne nii ñi ngi jógee ci école daara yi ak ñi nga xam ne ñi ngi jógee ci école publique bi te seen njàng àggul à terme dañu transformé wu dem ci acteur de développement économique ci commerce ci industrie ci agriculture ci artisanat ci diaspora bi mais ñom am nañ ben rëq-rëq ci sen ci niñ leen wara jappé ci ne réew mi mëna a doxe ci sen xalaat et économie bi 90% vingt dix pour cent ci ñoom la euh, euh, aju emploi yi tamit 90% ci ñom la té lool ñepp ko constaté ñaare ko andi moy benn bi ñun dañoo duggul pour mëna tok ci institution yi pour waxé fañ wara waxé wala ña fa nekk xamuñu dëgg la réalité li ñuy dund looloo taxoon bi ñu jógee ñu njëkkee ci Kaolack te même discours lañ tenir yàlla dimbali lañu ci Kaolack ñu remporté ko à 64 pour cent derrière des coalitions yoo xam ne nii xam ngeen ne ils sont très ci politique ak ak leur ak seen ak seen euh, jaar-jaar bi loolu paree ñu waxtaan.

Eh, jubal lu ci yoon décidé ñu nang ko inshallah lima ci wax rek mooy ànd nawle mom ah, ah dana continuer di taxawal ay basam ci partout au Sénégal pour que bok, ci li nga xamné ni li ñu taxawal a rek mom moy bok ci ah, eh, eh, dundaayu wala xalaat yi nga xamné ne nii mooy doxal réew mi xalaat yi nga xamné ni moy tax ci sénégalais comme 90 des sénégalais qui sont acteurs économiques de muy des di des di des di transport wala ngay def say Nous ñooñu nous bëgg ñu nous baat ña fa Nous tamit ndax ñun de ñun Nous ñoo ci des a Nous nous bëgg Sénégal mu nous Sénégal ci sa bopp rek comme ni ko alquran waxee waa aatu kullu si xàqan xàqoo su kenn ku ne gisee sa bopp ñu jox la sa droit rek je pense que réew mi jàmm dana fi am ci loolu nag dañuy leeral ne ñun nekkuñ formation d'opposition ñun nekkuñ formation de partisan opposition mooy da ngay contre li fi gouvernement bi di teg wala li fi état bi di teg partisan moom mooy da ngay ànd lu gouvernement bu ne waaw na nga ne waaw bu dee lu mu wax nga ne déedéet ànduñ ci loolu ñun liñ ànd moom mooy dañoo bëgg li nga xam ne nii ñun ñu ngi koy dund ak askan wi di ko dund lu ñu ci tegal ñu waxtaan ci laaj ay expert xalaat ci xool ci àdduna bi ni mu fay doxee ñu joxe suñuy xalaat bu dee loo xam dañ cee am baat

man ko jël en préoccupation waaw xam nga man comme ni ñu ko waxee suñu déclaration dañoo jàpp rek ne jusqu'à preuve du contraire li jaaragul yoon la jaar ndax euh, comme wax naa ko le président de la république dañu am ay relation yu yu yu yu yàgg bi mu nekkee depuis mu nekk ci gouvernement Wade après bi président de la république am nañ ay relations euh, professionnelles Moi je suis le président de l'union des chambres de commerce chambre de commerce institut public en même temps je suis membre du conseil économique et social parce que chambre de commerce mo fa am siège la chambre de commerce désigné ni décret def ko su député la la sax ñaar yoy ci changer ben ndax loi bi ñaar en même temps tamit li ci dolli ko man am ak mom relation de travail moy en étant maire de Kaolack je pense que ñun duñu changer suñu wax bi campagne dégg leen ñu fenn ñu dugg ci xëccu wala xulo directement avec gouvernement waxuma waxuma nak compétition yi ñu amoon au niveau local dugguñ ci dugguñ dénigrement dugguñ ci dara et vraiment danaa ci wax loo xam ne nii danaa ko reconnaître ndax nit ku ne tamit da ngay wax dëgg président de la république euh, le lendemain tabaski korité pardon maa ngi yàkkamti le lendemain korité Maroussi bi ma ñëwee certes xam nga ne président la république bu la recevoir lu muy wax moo mën a ànd ak moom la mais bi ma ko expliqué ñun fi ñu jëm ak li ñu bëgg a def ak fiñ bëgg taxawé nga xamné ni dañoo bëgg ñun am suñu légitimité populaire parce que ñun ñëpp ñu nekk fii kenn ku ne am nga parti boo xam ne boo demoon ñu éleure la ci te peut-être mën nga nekk député ñëpp xam nañ ne su fekkoon tey dama bëgg nekk candidat benn Bokk Yaakaar pour Kaolack danaa ko doon ama bëggoon a nekk candidat Yewwi Askan Wi dinaa ko doon ak yeneen ak yeneen mais je préfère am légitimité populaire pour que ëllëg bu may wax dañu ma wax ne ma lii nga wax waroo ko woon a wax ndax ci parti bi nga bokk wala ci parti bi nga bokk looloo tax bi ma ko expliquer samay ambition ci yooyu ba noppi vraiment avec surprise daf ko nangu wax ma ne ma d'accord naa ci loolu li ma lay conseiller rek moom mooy nga bañ dugg ci xastaate ak ci xuloo ak ci xeex et vraiment loolu dama ko ciy remercier parce que loolu dafa dafa am solo dafa am solo kon man awma benn problème ak moom ak gouvernement bi ak kenn certes da nga am ay les euh, les adversaires locaux mais ñom tamit dañuy am jafé jafé ci seen c'est parce que ndegam ñom ci seen biir ñoo am théorisé né ñom li tax ñu perte war faté. tamit ak population bi tamit li tax la yow déggo ak kon nga population kon bobu ñu population Eh, ñàkk population bi ñàkk ci ñoom yaakaar eh, projet de développement yi nga xam ne ni Kaolack waroon na koo am te ñoom ñu waroon ko défendre muy contournement muy marché bi muy port bi muy ay hôpitaux muy aérodrome bi muy yëpp ñoom ñu nekk ci seen biir di ko xeex di ko yàq ci seen biir ba man mii sax li ma ciy dox ak yëpp ñu di ko yàq looloo tax population Kaolack rejeté leen te danañ leen kon ne di rejeté bu ñu ci lii ñu nekk génn ci bi di juboo ñoom ci seen biir nañ juboo ak population bi juboo ak acteur politique ya fa nekkoon gañewoon leen leen kooku bu ñu ko defee a ah, xëy na ñoom après population bi mooy décider li ñun ñooy jël population bi di leen wax fii ñu dem kon li may leeral fii rek Serigne bu en tant que personne amul benn difficulté ak gouvernement bi amul benn difficulté ak président Macky Sall ak ñii fi nekk ci an ma àndal tamit yaakaar naa la même sos parce que Moubarak Lo dirige euh, un département gouvernemental président moo ko bu àndee ak ñun di liggéey kon yaakaar naa loolu ñun daf ñu dafa bëgg a won ne am na forme politique boo xam nit mën na koo def doo opposé au gouvernement bi doo nekk en conflit avec l'opposition da ngay taxaw taxawaay boo xam ne nii askan wi nga war a taxawal te loolu ci la ñu nekk te incha allah te yaakaar naa duñ ci am jafe-jafe ak kenn waaye nag dana am ñoo xam ne nii yàq rek leen tax a jóg ak wër di yàq der bon ñooñu mënaluñu leen dara ba àdduna taxawee ba léegi loolu dafa am li ñuy def rek moom mooy fexe faire ak ñoom ci suñu.

et c' est irrecevable mooy bu ñu la rejeté amoo beneen voie de recours wala ñom ñoo joom ci autre motif parce que gis nañ ci ay indices yo xamné ne yaakaar nañ ni ñom am amna ay joom joom daal waaw mais légui joxaguñ ñu vendredi lañ wax ne lañ ñi jox jox samedi lañ ñi jox autre motif voilà mais gis nañ vraiment les sociétés civiles def wax je pense que lolu buñ ko appliquer won dana baax ndax je pense que euh, démocratie mom lu mu yaatu ndax ñëpp xam nañ ne am na ñoo xam ne nii waruñu leen woon sax di laaj parrainage mooy ñi nga xam ne nii participé nañ ci élection yi passé am ay voix yu déterminant je pense que c'est un peu euh, c'est un peu c'est-à-dire illogique de dire que benn bokk yaakaar indi parrainage yeewu askan wi indi parrainage ànd askan wi indi parrainage je pense que ni ni coupe du monde di amee nga xam ne nii am na ci qualification yoo xam ne boo ci amee jëriñu la koy laaj je pense que démocratie sénégalaise war na àgg foofu ndax loolu dana wane ne boo participer ci benn élection ba montrer ne yow am nga yenn niveau yi je pense que loolu war nañ ko xalaat mais je pense que société civile déclaration bi ma gis ñu def c'est responsable je pense que autorité yi euh, war nañ ko war nañ ci def nañ ci def nañ ci tenir compte parce que jàmm dafa baax ci Sénégal élection am ci jàmm